ci 63 millions femme bi da ko koo abaloon waaye nag ba mu demee ba soxla ko dafa ko laaj mu lànk ba tëdd sa naaj wa si la ko porter plainte démb ca tribunalum Dakar moom Abdoulaye Cissokho bi ñu ko laajee nee na Lalla Gueye mii maanaam daf ko doon wut loolu li nga xam ne mooy ay sëriñ ndax daf ko wax na ko mën sëy naa ay yoon yoon yoo xam ne awuma doom te jamono ji dama am jafe-jafe ak ñi nga xam ne ñooy samay màkk te loolee laa bëgg nga lijjantal ma ay sëriñ yoo xam ne dina ma ci ñax na la Abdoulaye Cissokho nee na loolee moo taxoon mu daal di koy jox xaalis ba yéen kaay gi nee na nga xam ne wax na ko niki démb ca tribunalum Dakar yéyul ñi nga xam ne ñooy yi ndax nee nañu am na beneen waaye tamit boo xam ne moom Abdoulaye Cissokho dëbb na ko linja escroqué ko lu toll ci 73 millions yéene kaay gi nee lu toll ci ñetti at la ñuy wax ne nañ ko ko tëj ba pare jël ñaari këram ak ñaari otoma yéene kaay gi na ceeb beeg diwleen geeg suukar si libération yéene kaay xëy duñu xibaar lu jëm ci wàllum remaniement bi ba léegi ni Macky Sall waxu ko ci dara dafa mel ni kuy xor ñooñal ñi nga xam ne ñooy ministres yi ndax démb ca conseil des ministres ba amul ne Macky Sall yëkkati na ko si Macky Sall ne ñooy gouvernement bi ndax gaay jamono jamono ji kenn fi dem gaa yaa ngi xaara yéen gi di Sud Quotidien nee na lu jëm ci élection législative yeek lu soxal wàllum caution bi tey ji la koy waxtaane pouvoir bi ak opposition bi ak ñi nga xam ne ñooy non aligné yéen kaay gi nee na est-ce dina am loole nag la xaar ak di ko dégloo gi nee na wàllu Sénégal ak waa Yewwi ak waa Defar sa Gox tey ji danañu nekk ci mbeddi Ndakaaru yi ndax waa wàllu Sénégal ñoom dañoo ne nañu toog na ñetti weer yoo xam ne jànguñu yéen gi ne na Guy Marius démb ma nga woon ca élèves ya nee na Macky na fàttali bu baax a ne élève la woon ne étudiant la woon ne reconnaissant yéen gi di source nee na négociation yi tey jii danañu ko amale diggante jàngalekat yi ak gouvernement bi ça passe ou ça casse noonu la ko bi xëyi fësale ci xëtam mu njëkk yéen gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu terrain amuñu benn espace boo xamante ni a kaay gi wax na si daat nay woon ñi nga xam ne ñooy fédération russe ngir nag ñu respecté li nga xam ne mooy droit international respecté intégrité territoriale waaye nag respecté li nga xam ne mooy souveraineté bu Ukraine yéen a kaay gi di Dakar Times ci xalima ak Mout Baana nee ko Macky Sall defal attention Macky Sall defal doucement ci coow li nga xam ne moo dox diggante Ukraine ak Russie Macky Sall nag mu bànnee na ko maanaam bul gëmm say bët rek topp ki nga xam ne mooy Emmanuel Macron yéen a kaay gi du l'Observateur nee fi nga xam ne mooy Ukraine bëri na nag ay doomu réewum Sénégal yoo xam ne jamono ji ñoo nga fay dund dañoo tiit ba maara di taali dañoo paniqué nee nañu nag jamono ji daal li ñu bëgg mooy génn fii nga xam ne mooy Ukraine ndax nag wóoratu la yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar ñu lu jëm ci wàllum campagne de vaccination bi tey ji nag la ñu koy lancé waaye nag ñi nga xam ne ñooy syndicat yi ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi dañu koy